ba tey saa meewaan beneen euh, làmb euh, dox ci diggante jël dem toujours ci combat spécial deuxième waaw euh, jël dem ak jamteeri numéro 2 mu nekk combat boo xamante ne tey gis nañ ci ni ñaar mi rek pare nañ ñi ngi waaj a sëgg ñi ci présentation yi mu nekk nag mbër yoo xam ne xam nga leen bu baax lan nga ñu mën wax ci làmb ji. ah làmb ji de man de li ma ci gis mooy ñaari mbër yi ñaari mbër yu taxaw lañu liggéey nañu mais jamteeri 2 laa gën a miin jël dem. mais Jam Teeri numéro 2 ak Jël Demba ah compétence day ñu de mais nag boo bëggee nekk champion faa nga ko daan champion faa nga ko nekk champion faa nga ko daan champion mais Jël Demba ak euh, Jam Teeri ah lambu jëloon naqaree pronostic lay doon nag parce que ñoom ñaar ñëpp ñaari champion la ñu Jël Demba mu ngi jógee euh, euh, fii di écurie Tesset Jam Teeri numéro 2 jógee fii di écurie Kayar kon nekk na loo xamante ne xam ne nañ xaar ba ci kanam baar bu suuf ñu xool nu muy nu mu wane nu mu jékki bëtam waaw. waaw mu ngi noonu jël bu taset mooy noonu di saafonteeg ay supporteurs am euh, mu mel ni it indi na parce que dégg nga yuuxu yi bi ñu tuddee turam jam cere ngoog moom it mbër la. waaw indi na mbooloo. waaw moom it indi na mbooloo mbëru gox la. waaw mbëru mbëru gox la jam cere numéro 2. waaw rek euh, boo xoolee euh, mu mel ni daanaka xas-xas loo woon nañu ku Euh, am nga yaakaar ne mën nga daan sa moroom waaye nag verdict boobu noonu bientôt mu am parce que léegi ñu sëgg te buñ sëggee euh, dinañu xam euh, kan réellement moo gën a pare moromam waaye nag li nga wax léegi dañuy dégg ay mbër yu mag di ko faral di wax mas ak doole bokkul ndax kenn ki ëpp na doole moromam yaakaar ne bu arbitre sifflé léegi dinañ ca xam dara ndax aussi kii di jamteeri parce que tamit nit dina ëpp nit doole mën a bëre mais kenn gën koo tuuti gën koo euh, suupul mun koo jaar fenn pour daan ko ndax it mën a utiliser le poids bu jàmbur pour daan ko donc euh, loolu ndax yaakaar nga ko fi ci làmb ji. yaakaar naa ko ci làmb parce que jëm cër seetaan naa làmb ba tàyyi mbër mu mën a bëre la mbër mu mën a bëre la te loolu mën na nekk tamit mën nañu bëre ci biir combat bi déséquilibre am ci rek mu daan ko lépp mën na am mais tamit ëppante euh, nañ te ëppante nañ ci yaram nii rek mais mën na ko ba ñëpp doole. mais ba tey am na loo xam ni foog ñu laaj ko mooy euh, ki nga xam ne mooy Ousmane Gandigal ba léegi kenn gisagu ko ci làmb ji. Ah, loolu na ma trop man mii ne Ousmane Gandigal ba léegi gisagu ma ko ci làmb te mooy bëre grand combat bi. waaw te bii mooy bi mujj avant grand combat gis nañu Alaaji Gaynde moo ngi dem ay échauffement am ànd ak ay gàngooram waaye kii di Ousmane Gandigal déggaguñ ko ci pàq mi gisaguñ ko ci géew bi ndax dañuy jëm ci nii grand combat bi narul am wala boog dafa am fu mu nëbb boppam di xaar pour ñu siffler pour mu ñëw. waaw lépp naa nekk parce que euh, Sidi Diakhaté ku mu fay waaw ndax Sidi Diakhaté feeñee na ñoom ñaar ñëpp li war la ñoom def na ba jour si combat bi kon de ñoom war na gis Ousmane Gandigal waroon na tuus tuusul li tax mu def ko nag ma ñeneen tegtali lamb mën a nekk loo xam te ay mbokk mën nañ ko ko déy ni ko boo demee defal li defal lii parce que lamb dafa nekk loo xam ni yoon la waaw loolu nag ñu ngi ci kanam ba ah, combat bu taxaw ci digg mooy diggante jam ceeri numéro 2 bu écurie Kayar ak euh, jël dem bu écurie Tesset ñoom ñaar ñi ngi taxaw ci digg bi arbitre baa ngi wax ak ñoom arbitre baa ngi laaj ay consultant ba xam nu nu muy demee ñu ngi léegi arbitre bi sifflé combat bi arbitre sifflé na combat bi ci diggante Jël Dem ak euh, Jam Téere numéro 2 bu écurie Kayar Jam Téere numéro 2 moo ñëwoon ginnaaw ñu ngi jàkkaarloo ak euh, Jël bu écurie Tisset ñu ngi na nag di Jam Téere euh, Jël Dem moo ngi lay jot ay jotam Jam Téere ngi tekk di ko déglu arbitre bi na mel na ni ma ngay jot euh, voilà jot na ba pare fi ñu toll nii moom xam naa ni euh, léegi euh, li nga xamante ne mooy ñaari loxo yi commencé laalante parce que gis nga kii di jël dem ma ngay avancé di ñëw taxaw na kii nga xamante ne mooy jamtari également mbër la boo xam ni waane na daal gis nañu ab waane ci li nga xamante ne mooy bëreem. dafa waane ci bëreem bu la daanee rek daanee na la waane ci waaneem nga koy toppam daan la ñu ngi léewtoo di doxee côté diggante weex li kii di jël dem ma ngi ngemboo nge seru Lagos waaw ñu ngi taxaw di lewtoo ñoom ñaar. ba léegi laa lañ teeguñu euh, ku si ne ñu ngi si seen round d' observation ñu ngi sànni ay loxo waaye ba léegi baaraam yi laa lañ teegul. ñu ngi ñu ngi ni teg rek kenn ku ne nga diglu sa ñu ngi lewtoo lewtoo bu dib daal mu mel ni kii di jamteri bu euh, jël dem bu écrit taset moo ngemb ngemb euh, kii bi euh, seru rabal bi kii di kon jamteri numéro 2 moo def ngemb bu weex bi xaw a jàkkaarloo ñun moo ñëwoon ginnaaw mais tourné na ba jàkkaarloo ñun kii di jël dem mujjee nañoo wan ginnaaw mu nekk nag combat boo xamante ne fi ñu toll nii daanaka mbër yi mën nañoo joué lii di grand combat xëy na si di jaxate pour neexal bés bi ak xëy na sagal li nga xamante ne mooy yi moo tax mu def combat bi combat espécial yokk ko ci li nga xamante ne mooy jëm ci combat bu mag bi di ki nga xamante ne mooy Alaaji Gaynde ak Ousmane Gandigal waaye lii rek mënoon na nekk combat bu mag lii rek mënoon na nekk combat bu mag mais Sidi bëggal doomu Thiès ak bëggal goxu Thiès moo waral lii su ko neexoon dem di jëlee ay mbëri Dakar mais defu day ñëw jël tund bi mbëri fi nekk mu ñëw bëreloo leen Sidi Diakhaté daal ku waa Thiès war a jàppale la autorité Thiès nañ gën a jàppale Sidi Diakhaté parce que dafa nekkal doomu Thiès a jël dem ak jëm ceeri numéro 2 léewtoo bu dip mais lepp lu may gis nak jam ci di de ma ngi doxlo ki day jël dem pour mu jema a yaram waaw euh, jël dem euh, mepp na sank mais demul combat ba ngi dox ci digënté jël dem ak jam ceeri numéro 2 jam ceeri numéro 2 mo fer sen loxo droite jël ki di jël dem fer sen loxo gauche ñom ñaar ñu ngi léewtoo ba léewtoo bu dip ba légui ñi ngi ci bir geew bi ki di jël dem ma ngi jang euh, combat bi ki di jam ceeri numéro 2 ma ngi jang combat bi wa ñu xol ba xam fu lamb ji ne mujjee. mi ngi commencé bar nag euh, kii di euh, jël dem mi ngi dox ci ginnaaw ci kaw jamteri waaye jamteri mi ngi koy euh, baaje kon li ma doon sànq sànq ci combat mbul bi li leen doon xaar ñu maanaam kenn baaje moromam pour am ah. ah jël songo do songo nag ñu xeex ñu xeex ci kaw ñu ngi xeex ci kaw oh daan na ko. waxoon naa da ko ëpp doole da ko doole waxoon naa ko da ko ëpp doole da ko ëpp doole daf ko ëpp doole doole. lamb doole doole joxul jàmm. Mm. daf ko mu mel ni sa waay jël na ku waaye nag euh, euh, kii jam jël jam li mu doon xaar mooy rek dax jàpp na ko takk ko xatar bi ko dóor ci suuf. loolu la doon xaar rek. ah Sadio nga wër géew bi de. champion jël jam ñu ngi lay siyaar. ndam rek delloo siyaar. non daane sa adversaire. non waxoon rek. pour pour sa ba tegu ci lamb ji. nañ ma ñaari bëri grand combat bi. ci diggante ñii du samay morom. nan ma jox samay morom. waaw mais xaar yàgg na loolu dañu yàgg a gis sax foo newoon. man maa ngi woon di liggéey rek. ah bu bëri waaw waaw Thiès mais maa ngi taseet. di André Sougou taseet Moussante. Saar xaarum Saar. bu baax xaarum